of Tap Tap Send xibaar yi lu ciy gën a fës bokk na ci lu tukkee ci mbas mi juróom-ñetti fukki doomi aadama ak juróom-ñett ñoo dolleekuwaat ci lim gu fi jot a amee coronavirus bi lu tolloog ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom faj nañ leen ba ñu wër juróom-ñeenti aadama dolleeku ci lim gu si jot a ñàkk seen bakkan ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daal dinay wàcc ci banlieue bi ci gox ya nga xamante ne ni foofee la mbënn mi laal waaye nag jaaram wa ca gox yooyee neexu la benn yoon ndaxte rek la mu fa jëlee doonu la nga xamante ne ni moo ko gënal doonte def na lépp wàcc xuus ci biir ndox mi ak mbënd mu sonal lool askan wi rawatina ña ca banlieue wa njiitu réew mi Macky Sall daal dinay woote réunion d'urgence ca palais yan décision la ñu fa ci le jotaayu xibaar njiital coalition bu mag bile di gëm sa bopp ni ki tey si ji bu 11h jotee lu sabab ñu daal di koy woolu moom Bougane Gueye Dany dinañ leen ko njiital alliance générationnelle National pour les intérêts de la République ñu naan ko agir ci gàttal daal dinay dénoncer ab alliance calculée et politicienne jëmale ci kujje gi fii ci Sénégal yu kii di Ousmane Sonko Karim Wade ak Khalifa Sall ñoom nag ñoo nekk di xool boobu boobule mbir tax rek mu leen di tëkku ne dina leen yoole dina dinañu àddu jëmale ci accident bu métti bu am Barkeyel nekk ca Tambacounda foofee nag benn bus moom moo fa dal di tël lu ko fukki ndongo ñett ña ñàkk bakkan juróom-ñaar ya ah, ñoo nga ca jëlee ay gaañu gaañu ah, sortie bu Iran daw mujjee def di ci xamle ni daal jong na ñaari yoon jur na réaction yu bëri ah, ci ñenn ni ñu siy def taxaw seetlu ki nga xamante ne ni nag moom moo di Serigne Momar Diagne daal dina si yàddu waaye nag di sàkku rek ci ay mbokk Iran daw ngir ñu dimbale boobule oustaz di Iran ak sortie wam yu bëri yamuy def rappeur bii di Julien mu ñu teg loxo gannaaw vidéo wam bu mu génn ni dippeekoo tarixa euh, tàmbale nañu di koy waxtaane wuuteeg ñenn ñi Amadou Mahtar euh, kante daa gis ne daal rappeur bi defoo lu dul dénoncé lu mën a taal suñu réew mi lee di euh, Sénégal yeneen détails yam si xam ne yëpp dinañ leen koo xamal la am ca diwaanu Géejawaay doon na lu doy waar lool benn maaraawu daal ab mbër bu siiw lool moom moo gasal ndëgg sërëx benn soxna arnaqué ko ab ba noppi tëddee ko lu bari lool loolee yëpp bu daa daañu ci toftal xibaaru tàggat yaram addu ci lu moo di mbirum football mbokk yi tënk yaa ngoog yaatal wi ginnaaw bakk bi lay doon. Euh, mu ngoog euh, bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax a baax di leen dalal jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal euh, tey ñaari junne doomi aadama ak ñetti téeméeri juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñu daal di testé juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ya ñoo ca amee coronavirus bi fukk ak benn yi dañu leen wàll juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar di ay cas communautaire bu weesoo loolu ñeenti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñeent fukk ak juróom faj nañ leen ba ñu wër juróom fukk si ñu amee tawat wi sonn nañu ba ñu nga am ne ba mu ñu ganisee ba jamono ji may waxee ak yéen eh, juróom-ñaar fukki junney doomi aadama ak ñaar ak fukk ak juróom ñoo fi jotaamee coronavirus bi eh, ci ñoom ñoo ñee juróom fukki junney doomi aadama ak juróom-ñaar ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak eh, juróom-ñeent faj nañ leen ba doomi aadama ak juróom-benn téeméer juróom-ñett fukk ñoo si ñàkk seen bakkan fi mu ne nii fukki junney doomi aadama ak ñaar ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo amee coronavirus bi ñu leen si traité fii si Sénégal ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daal dinay wàcc ci banlieue bi ci gox yu mbënd mi laal waaye jaaram bi nag ci gox yooyee neexul benn yoon ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ak ay équipe am wàcc nañu Caaroy Azur ngir xool situation askan ba fa yewoo nga xam ne depuis ñetti fan ñoo ngi dund ci mbënd mi ak ay botam Antoine Félix daal dinay wàccoo toom xuus ci ndox ma waaye taxul mu jëlee fa la ko neex jëwriñ bi dañu ko sax wuupoo ca situation bi taroon na lool sax euh, ci fàttali ay ndawu Parcelles Assainies ca Kër ma saar Massar kontaanuñu benn yoon ndaxte anam bu métti la ñuy dund bés yi gannaaw taw gu rëy gu wàcc euh, fii si euh, Ndakaaru mbënd maa ngi wéy di jur ay jafe-jafe ak i ay yàqu-yàqu ci banlieue bi ca caaro Caaroy Tali Jaara wetu marché Darkase benn fas moo fa ñàkk bakkanam gannaaw ba ko rek fiil yu nekkoon ci suufu ndox mi maase ka moom fas wa nag kenn mënu koo dëfal gannaaw ba mbir mi amee ci noonu muy sàkku ndaxte nee na fasam boobee mooy alalam lépp te si la doon dundalee ñii di njabootam ak mbënn mu sonal lool askan wi rawatina ña ca banlieue ba njiitu réew mi Macky Sall daal dinay woote réunion d'urgence ca palais ak la ñu jot investir yëpp nag Dakar ak bi daal mi ngi tëmb ci ndox mi njiitu réew mi Macky Sall nag daal dinay xamle benn programme de renforcement wu 500 millions ci suñuy koppar maanaam juróomi téeméeri millions ci suñuy koppar ci plan décennal buy xeex mbënn mi ay ndiggal ya ñu war a jëfe ngir libérer canaux yuy évacuer ndoxu taw yi joxe nañu ko fa ci lu amul xaar nag nguur gi dina yokk jumtukaay ya ñuy pomper ndox mi ca Kër Massar ak yeneen i gox yu mbënn mi laal ci réew mi ñu xamle ko ca seen réunion boobu ñu doon amal ca Palais. ba tey ci mbirum euh, njiitu réew mi Macky Sall ak bile yoon coppite ya mu indi ci ay rang officier supérieur armée bi ci diggante nomination ak mutation lu yem ak juróom-benn fukki officier supérieur Euh, mesure yu yeesu njiitu réew mi Macky Sall laal na leen ñu fàttali leen ni euh, bii mooy euh, rek ñaareelu yoon ci lu matul ñaari weer njiitu réew mi di indi ay coppite yu am solo lool ci ay rang armée bi ak gendarmerie nationale njiital coalition bu mag bile di gëm sa bopp commissaire Sankaré daal dina koy woolu ni ko tey ci altine ji ba 11h jotee ci dibeer bi nag la ko commissaire Mendiwo daal di koy xamal rek ne dañu ko soxla ni ki tey jile ci ji expliqué wu ci ay affiche ci panneau publicitaire yu nekk fii si Ndakaaru di si woo sénégalais yi ngir ñoom ñëpp ñu dem bindu ji ci liste électorale yi Thierno Bocoum njiital alliance générationnelle pour les intérêts de la république ñu naan ko agir ci gàttal daal dinay dénoncer ab alliance calculée et politicienne jëmale ci kujje gi fii si Sénégal yu Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall daal di rumbanaat ci ab note bu mu biral Thierno Bocoum daal dina mu xaajoo responsabilité yi ci pouvoir bi euh, bañalit Idrissa Seck volonté fraternel am ngir euh, associé ñuy ci entrisme euh, ci noonu mu ne nag xeex guñu la ñu war a xeex yëpp ci réew mi tey naan duñu seetaan tamit ñetti ñi lee di Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Karim Wade di ñuy nas buum ci bakkan li ni tax mu ne leen nag yéen lay waxal seen alliance calculée et politicienne bi jëmale ci kujje gi ak yéen ñooñee ci seen bopp dinañu ko dénoncer wa illa dina annoncé dina ko rek dal di yoole ba ñëpp jot ca mu fu ko moom Thierno Bocoum ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz ab waay buy wuyoo ci turub Jabel Thiam la ñu fekk mu ñàkk bakkanam ca place de la nation ba ko ñenn ci askan wi gisee nag la ñu daal di woo sapeur pompier yi ngir ñu ñëw euh, jëlee ko fa ñoom it ñu woo police yu quatrième arrondissement ngir ñu def constat d'usage bi Jabel Thiam moomee ñàkk bakkanam ne nañu Jurbel dëkk ñenn ñi xamal nañ ñu ne sax def na ñaari fan ñu ngi koy nemmeeku muy ñëw di tëdd foofee ñu ko fekk mu ñàkk bakkanam ba ko fekk ak benn bonbon ak ndox ba mu waroon a jëfandikoo maadu jëmale ci accident bu métti bu am la nekk ci Tambacounda foofee nag ñetti ndongo la fa benn bus bu jógee ko Dakar tëll bu ñu sukkandikoo ci laas bu biral xibaar yi ñetti élèves ya nekkoon ci ab vélo wu ñetti pneu bus bi dalee na tasaare tax ñoom ñëpp ñàkk ca seen bakkan ñaax ñi ci saa si la ñàkk seen bakkan kenn ki ca ba ñu koy évacuer kër docteur gannaaw ñoom yeneen juróom-ñaari élèves tamit jëlee nañu si ay Euh, gannaaw ba leen biis ba tëlee ñoom it ñu ngi leen yóbbu sax ca hôpital régional bu Tambacounda euh, bu ñu sukkandikoo ci journal bi élèves yi euh, Balacounda nekk ci département bu Tamba la ñu jógee ko woon ngir dem Missira dimbali ji daal seen maître ci liggéeyu tool yi ci benn virage bu nekk village bu Baréel nag la biis bi dal di leen di mbëkkee ba ñett rek ñàkk ca seen bakkan ñeneen ña nekk kër docteur leneen sortie bu Iran Ndaw mujjee def di si xamle na ñaari yoon jur réaction yu bëri lool si ñenn ñoo si def taxaw seetlu Iran Ndaw sorti wam yu bëri yi yamuy def dara wundu ko lu dul wut bës li nu mel sax la Serigne a Diagne gis laata muy xamle ni waarekat bii di Iran Ndaw daal daa mel ni léppam dikkul ba tax mu gis ne famille am dañu ko war a dimbalee ngir calmer ba noppi gindiwaat ko rappeur bii di Julio mu ñu teg loxo gannaaw vidéo am bu mu génnee dippee tarixa tàmbale nañu ni Amadou Makhtar Kanté daa gis ne daal rappeur bi dellu lool deful lu dul dénoncé lu mën a taal suñu réew mi lee di Sénégal tax muy woote ngir ñu dal benno gën a xam ay mbindu suñu mag yu baax yi te bañ a war a seeni ay njàngale yilee kàddu mu biral ci page Facebook am tax na ñenn ñi jàpp ne daal Imam Kanté comprendre euh, lu waral ñu teg loxo rappeur bi lee di Julio ci fàttali artiste boobee di Souleymane Ndiaye ñu gën koo xam ci turu Julio Lapsoli euh, waa groupe de recherche recherche et d'interpellation de la division des investigations criminelles ñoom ñoo ko jëli gannaaw bu mu biralee son boobee mu dippee tariha la am ca géejewaay doon na lu doy waax lool maaraawu benn mbër mu siiw moo fa gasal daan dëgg sa rëx ab soxna daal di koy arnaqué ba noppi tëddee ko lu bëri li ni mel nag doon lu doy waax lool la nga xamante ne ni jur na bruit foofee ca diwaanu géejewaay Titi doon na ku ñu ràññee lool ci musique sénégalaise bi waaye ndaxte rek euh, duñu koy gis ci réseaux sociaux yi nit ñi sax xamuñu ko mën nañoo ne euh, tey nag daal dina ñuy jot ay photom di kooku ngeen di gis ci écran bi euh, moom moomee di Fanta Ndiaye ay atam toll si ñaar fukk ak ñett charmante lool te taaru moom mooy doomu Titi dëggantaan comme ni ngeen koy gisee noonu rek ci photo bi. noonu laay xuusee ci xibaaru tàggat yaram doo ko làmb ak doom bu góoru ba Lac de bu gane si àdduna ba ñu ko ngénte ba noppi guerre daal dina yëkkati ay kàddu ne mënula wax qualité Lac de Guiers yëpp te nit ku nekk am na défaut waaye nag moom soxnaam euh, ba mu nekkeek euh, Lac ba tey gisul défaut bu tax ñu naan défaut laata muy naan qualité yu mu gis daal ci kii di Lac de Lac de Guiers 2 ñu bokk ko moo tax mu daal di koy sëyal maanaam ñoom ñaar dañoo déggoo su ma noppee ci làmb damay addu ci football match Brest Paris Saint-Germain laa koy euh, doore maanaam ci lu ñeel wàllum football gi Idrissa Gana Gueye nag la la homme du match gannaaw ba mu marqué bii bu rafet euh, moo ñëw nag euh, en tant que titulaire ci ñetteelu bésu Ligue 1 bi gannaaw ba mu rattee ñaari match yu njëkku Paris Saint-Germain sa Gana Gueye wone na ni daal ñàkkul benn yoon lii di euh, formam bu ma jógee ko Paris Saint-Germain damay jubali ca Liverpool ci ubbi teb ñaareelu bésu Premier League bi samedi Sadio Mané ubbi na compteur bi wamu saison bi daal di am ñaari bal ci dara ci kanamu Burnley mu ubbi nag score bi gannaaw fukki simili ak juróom-ñett ndax ab réalisation nga jóg jota Reds si yokk nañu si beneen bi ci intermédiaire ci di Sadio Mané bit soccer euh, la koy ndar ak xibaar bu nag bu tàbbi ci international sénégalais bii di Raoul Mendy euh, moom nag waajuram bu jigéen moo wàññeeku mu nekkoon Russie ak équipe nationale bu Sénégal euh, ngir disputer vingt et unième édition coupe du monde bit soccer bi Raoul Mendy fexe woon na gérer ay émotion wam mu dugal ñetti bal ci match bu njëkku gaynde yi en phase de poule ci waxtu yu mujj yooyee le joueur bi yëgee xibaar wu nag wi di génn àdduna bu jigéen jigéen bu ñu sukkandikoo ci ab note bu fédération sénégalaise de football biral Dominga Gomis di waajuru joueur bi mi ngi uh, génn àdduna samedi bi ñu génn yemoo woon ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru août atub 2021 Raoul Mendy nag uh, jooy jooy yu métti uh, daal la def ba mu ba noppi di rendre hommage waajuram bu génn àdduna ndaxte yombul ñàkk ku sa si yow rawatina muy sab yaay ba mu dugalee but sax la fësal ab mayo boo xamante ni mën nañu se liir rip maman ay naataango alors que équipe Dakar Buzz yëpp ñoo ngi koy jàll tey ñaanal waajuram boobee fa mu jëm gënal ko fa mu jógee.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 votre Orange Money jërëjëf tap tap sen